way juróom bu góor mi ngi tudd sëñ nuux saydi way juróom bu jigéen tudd soxna maymuna koma mi ngi gane àdduna le 10 deuxième mois 2005 mi ngi am fukki at ak juróom ñaar sëñ mansour iqra lana baada aouzu billahi min alsheytan arrajim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 قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلاً وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الظل وكبره تكبيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينفرون لينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا jërëjëf sadaqa allahu al-azim sadaqa allahu fiik السلطات المهيبة الضيوف الكرام السيد مدير معهد دار التنزيل سيداتي وسادتي أعضاء هيئة التدريس بمعهد دار التنزيل وكذلك هيئة الإدارية أعزة الأولياء والمتعلمين نقدم لكم خالص تحياتنا وتحياتنا السلام عليكم ورحمة الله اسمحوا لنا بهذه الفرصة لتذكير إخواننا وإخوتنا المسلمين بأهمية التربية الإسلامية المجتمع من أهم مقاصد الإسلام غرس المعرفة والفضيلة في نفوس الأطفال قادات المستقبل ولكن أيضا وقبل كل شيء حماية المجتمع من فساد الإخلاق من فساد الأخلاق الذي ابتلي به العالم المتحضر قال خاتم الأنبياء عليه السلام أن أفضل هدية يمكن للوالدين تقديمها لطفلها هي ضمان حصوله على تعليم جيد الإخوة الإخوة والأخوات المسلمون الأعزاء الوقت خطير baladuna yamurru bi fataratin muslimatin silatin min al udwani wal qatli la nihaa'i wa huwa amrun la yusaddiq fuqdaanu lmuhaamil fi muwaajahati azmiyati alqiyaami haazi min almilxi alawdati ila altarbiyati alislaamiya min almilxi alawdati ila altarbiyati alislaamiyati almadinati madinati ala alshariati wassunna wa alayna maraajicata adilatana alruuxiya waddiiniya wa fi hada sadaq yaqulu cheikh alxadim radiallahu anhu al ilmu yuxyi qalba man taallama yunawiru nafsa kama yajlu al ama wa xitaaman li hadihi alkalima fa inna altaalima uqawi silaaha li taxyiri alaalam bi rummati wallahu almuwafiq walhaadi ila sawaai sabil wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh le clément il est miséricordieux louange à Allah le seigneur des mondes le maître des cieux et de la terre. Paix et salut sur le sceau des prophètes, Mohammed, notre référence, auguste autorité, honorables invités. Monsieur le directeur de l'Institut Darou Tanzil, mesdames et messieurs, le corps professoral du franco-islamique, ainsi que le personnel administratif, chers parents et apprenants, nous vous adressons nos salutations les plus sincères et les plus cordiales, à savoir Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa Permettez-nous par cette opportunité de rappeler à nos confrères et consoeurs musulmans l'importance de l'éducation islamique pour la société. En effet, l'une des plus importantes finalités de l'islam est d'inculquer le savoir et la vérité à nos enfants. Les futurs dirigeants mais également et surtout de portiser la société contre la dépravation des mœurs qui la gangrène. Le sceau des prophètes, paix et salut sur lui, a dit Man walidun waladahu afdalu min adabin hasanin. Que le meilleur cadeau qu'un puisse offrir à son enfant est de lui assurer une bonne éducation. Chers frères et sœurs musulmans, l'heure est grave. Notre pays est en train de vivre des périodes sombres des séries d'agressions et de meurtres à n'en plus finir. Une perte de repères unis. Face à cette situation de crise des valeurs, il urge de faire un retour à l'éducation islamique basée sur la charia et la sunna. Nous devons copier sur nos guides spirituels et religieux, n'entendons souvent affirmer que l'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le monde. C'est par ces mots que je En souhaitant la bienvenue à toutes à tous, que la paix et la santé règnent en vous. Merci. barakallah fik jërëjëf Baye Bekay Ndiaye ci discours boobu nga xam ne tënk na ko moom it ci français muy bi ñu doon def ci arab léegi euh, fi ñuy xamee ne fi lay daane la fi lay sëriñ Mouhamadul Moustapha Mbacke moom sëriñ Bachirum Cheikh Amadou di agsi ànd ak sëriñ Abul Baraka ak ab délégation bu jógee ca sëriñ Bachirum Cheikh Amadou Fadil ñu leen di dalal kon ñi ngi woo kon soxna jee su kase soxna jee su kase mooy war a tënk discours bi ñu defoon ci arab def ko it ci français moom moo ki nga xam ne moo koy tënk ci làmmiñ wolof soxna jee as su kase kon moom lañuy woo ci biir loolu ñuy leeral ne Cheikh Mamadou Fadil Lo di xalifab sëriñ Muxtaar Bintaloo mi nga xam ne moom lañ dara jaale bis bi yebal na fi ab délégation muy sëriñ Xalifa Lo ak sëriñ Cheikh Bachir Lo ak sëriñ Moustapha Lo ñoom ñoo fi teewal sëriñ Falil Lo mi nga xam ne mooy xalifab sëriñ Muxtaar Bintaloo rahmatullahi alayhi wa radiya anhu kon ñu jox soxna jee assu kase ngir mu defal ñu discours bi ci wolof rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli ñoo ngi tàmbalee ci tur yàlla boroom njéggal ak yërmande bu yaatu bi di sàbbal ak màggal boroom tey ak ëllëg boroom asamaan ak suuf di julli ci sangu-sang yi muhammad sallallahu alayhi wa yéen kilifa yu tedd yi yéen gan yu tedd yi kilifa daara ji jigéen ak góor yu féetewoo jàng mi fii ci daaru tanzil ak ñépp ñi jàpp ci liggéeyu daara ji yéen waajur yi ak ndongo yu tedd yi ñoo ngi leen di nuyu nuyu bi gën a yiw gën a tedd te gëna sakkan muy asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. may leen ci bés bu tedd bi ñu fàttali suñuy mbokk jigéen yu góor jigéen ak góor njariñu jàngaleem lislaam ci aw askan jàngaleem lislaam bokk na si tax a jóg def xam-xam ak yar ci ndaw ñi war a jiite réew mi ëllëg waaye tamit fegul sunu askan yàqu-yàqu jamono sangu-sang yi sallallahu alayhi wa wax na ni maa naxala waalidun waladahu afdalu min adabin xasan maanaam neexal bi gën a bi wayjur mën a jox njabootam mooy def xam-xam ak yar mbokku jullit yi jamono bi jaxasoo na ak yi yàqu-yàqu suñu réew mi mi ngi dund ak lëndëm jikko yi yàqu nañu agression yi agré yi bari nañ ñàkk wéeruwaay bi doy na waar mbokk jullit kuy dem ba xamatoo foo jëm da ngay dellu fa nga jóge jot na te jàmp na ñu delluwaat ci jàngaleem lislaam ndax ndax duñu faral di wax ni jàng mooy li gën a am solo pour doxal am réew ci kàddu yooyu laay jeexalee di leen dalal ak jàmm te di leen ñaanal jàmm ju sax ak wér jërë ngeen jëf soxna jee astu kase moom it fi moroom yi jaaroon fi la jaar li ñu tënkoon ci làmmiñu arab ak français moom lañu ñu tekkil ci wolof kon mel na ne daara ji mi ngi bàyyi xel e, képp ku bëgg a jariñu bunt yi nga xam ne dañ ciy mën a jaare ngir jariñu làmmiñu arab làmmiñu français ak làmmiñu wolof bi e, di ci tàggat xale yi leen ci jàngal ngir bu ëllëgee ñu bokk ci ñi nga xam ne danañ mën a tasaare leen lislaam ci gën gaa rafetu tasaare ci jumtukaay yi nga xam ne buñ ko jëfandikoo tasaare ba dana gën a jàppandi dana gën a yaatu dana gën a mën a am njariñ kon yàlla na yàlla mottali seen i mébét ba seen i liggéey sotti euh, mbokk yi ñu lim fi tuuti ay délégation yoo xam ne jot nañu fi agsi délégation groupe scolaire excellence excellence euh, Sénégal euh, agsi nañ ci jataay bi délégation Serigne Abdoul Karim Mbacké moom Serigne Modou Boussa Dieng moom it agsi na ci jataay bi délégué de quartier Serigne Assane Sané ak délégué de ak sëriñ Alhaji Malick Sy ànd ak délégation moom it délégation imam sëriñ imam Cissé représentant imam Guédiawaye sëriñ Alioune Sané bu Koungheul ak délégation soxna Sora Diop moom it agsi na ci barab bi eh, ak délégation eh, littérale ni ko bindee nañ ko bindee ci ay environnement yaakaar naa luñ bi dañ ko bind ci yaxu arab nag moo tax daayira ak daayira soxna Maam Jaara Buso ak soxna euh, Aysatu Mbaw ñooñu ñooñu nga xam ne indi nañ leen fi ci ay tur yoo xam ne jot nañ fi agsi ba léegi rek mbokk yi ñuy xam ne ne jublu ñoo matal ñëpp euh, li ñu waxoon ci ñi nga xam ne ñoo doon barkeelu la ñuy wax ci mboolem invité yi loolu mooy lan mooy ñi doon barkeelu daara jëpp amoon nañ yéene ñu barkeelu waaye ñi barkeelu dañoo yóbbaale ñu ci des délégation it ñi kuñ ci lim rek day yóbbaale ñu ci des waaye jubluñu ak matal eh, waaye bu ñu sañoon ku nekk ci ñu fi teew dañuy tudd sa tur tudd sa sant tudd sa teewaay ak ak barab ya nga jógee ñoo ngi jéglu baax a baax ci képp koo xam ne rek eh, eh, agsi wut ci ñun ak délégation bi nga xam ne moo jógee sag mbaaw ñoom it nañ nañ ci jataay bi mbokk yi ngir ñu wéyal ba léegi ci programme bi Euh, ñetti discours yooyu lañ ne woon bu jàllee amoon na benn nachid boo xam ne moo ci waroon a tege moom mooy ci mu nekk ci programme bi jàllale nañ ko waaw mu ne kon jàllale waale nañ ko kon ci biir mm, programme bi kon li ci tege mbokk yi mooy discours ressortissants yi moom mooy li nga xam ne moo ci tege discours ressortissants yi mooy ñi nga xam ne ñoo jaaroon ci daara ji jànge fi alxuraan ba noppi nekkaat ci yeneen ñii ñi ngi jàngale alxuraan ñii ñi ngi wéyal seenum njàng ñi ñi liggéey waaye nag kóllëre gi doxoon seen digganteeg téere bi kóllëre gi doxoon seen digganteeg daara ji doxoon seen digganteeg sëriñ daara bi lu sëriñ xaadim doxoon seen diggante seen biir ñi ngi koy sàmm di ko jokk ci jamono ji nekk bu daara ji xewlee ñoom ñëpp ñu yëg ne seen bis agsi na ñu bàyyi seen yitte yëpp ñëw kon ñoom seen kàddu lañuy ñuy jàllale incha allah sëriñ bismillah bismillahi irrahmani irrahim alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah nabiyina muhammadin wa man wala mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu noo ngi santar suñu boroom subhaanahu wa taala ci tawfiix gi mu ngi mayaat ba ñu amaat bile jotaay bu tedd di jotaayub alquranul karim fondation daaru tanzil woote ko ren ñu ngi ci suñu dix-neuvième édition de fukki ak fukkeelu euh, fukk ak juróom ñeent ci ndaje mi xam ne ñu ngi koy def di teral dongo yi nga xam ne ñoo wattu alquranul karim ci fondation daaru tanzil ñu yóbbati woon ma ay kàddu nag ñi nga xam ne ñoo jànge ci daara ji ba génnee fi tey ñii ñii nekk ci daara di jàngale ñii nekk ci barabu liggéeykaay ñii nekk ci école yi di continuer seenum njàng ñoo dajale seeni kàddu yi kàddu sant joxoon ma ko ne buñ accès ci bis bi naa ko jàllale ci seeni tur ci njiitalu Cheikh Mouhamadou Fall sëñ Moussa Diaw Cheikh Wul Baraka Mbacké ak Cheikh Massamba Ndiaye ak mboolem suñu mag yi nga xam ne ñoo nekkoon ak ñoom ci daara ji kàddu yi nag du weesu lu ñetti tomb rek bi ci jiitu mooy dañuy santaat yàlla subhaanahu wa taala mi ngi defal tawfiq ba ñu jaar ci fondation daaru tanzil sàkku fa xam-xam akub yar ndax gis nañu loole lim ñu jariñ tey kon ñoom nee na dañuy maase di wax alhamdulilahi rabbil alamin duñ ca sori bi ci jiitu bi ci topp mooy sant sëriñ xaadim mi nga xam ne ci loxoom la ñu jaar gis nañu ni mu doon teetee di waxtaan ak ñun ci nit ku nekk naka nga war a fonke sa bopp ak nit ku nekk naka war a taxawee sa bopp ba bu ëllëgee nga mën a jariñ sa bopp eh, naka noonu it eh, nga mën a jariñ sa njaboot ci li nga xam ne moom lañ doon def ci yow wax dëgg yàlla sëñ Mahmoudan ñeneen gis nañu taxawaay boobu nga doon taxawee ci ñun ndax kenn ku nekk ci ñun kum jëflanteel ku ne da nga xemeem jikko yu rafet yooyee nekk ci kook yi te li ko waral mooy yar boon doon yar ak teete gooñ doon teete ba ñu xam te fa tànk kon ñoom ñëpp nee nañu daal kàddu yooyu ñu la koy jox di ko wax ñu ngi lay sant fa yam ñu ngi lay ñaanal tam fa nga bëgg a àggale liggéeyu lislaam bii di al alquranul karim ak yarub ak yarub lislaam suñ boroom xam na ko te it yàlla yàlla yeggale sa sago kàddu gi nga xam ne moo ci topp muy tom bu mujj bi ñu jagleel ko suñu mbokk yi nga xam ne ñoo jàngandoo woon ci daara ji ba génnee fa muy kàddu soññeewaat ci gën a ñu gën a dajaloo gën xam li ñuy boole woon te li ñu boole duñu teqale muy alquranul karim ñu ne nañu fexe ba gesuwaat daara ji ndax ku ne xam na fi dund fi tollu tey loo làmb rek ñu ngi la dolli waatal man danaa wax ne danaa dégg ay nit ñu naan internat yi bu ñuy fayeeku nangam xale bu nekk vingt cinq mille wala trente mille da ngay dégg ñenn ñu naan suñu daara bi am na xaalis waaye bi ma demee ba yàlla dogal may yëngu ci biir daara di xam jafe-jafe daara ci laa ne suñu daara yi ndekete kenn xamul li nekkoon ci coono benn bu xale jamono bii fi dund bi toll yaakaar naa umpul kenn fi saako ceeb toll umpul kenn fi diwlin toll umpul kenn amul dara looy laar rek lu yomb tey nga war cee dajale nag téeméeri xale lu topp kooku buñ na jàppalewul coono yi dana gën a bari lool kon ñu ngi joxe suñu kàddu di soññ képp koo xam ne réseau du sanga ci biir daara ji ñu ànd ak Serigne Khadim jàppale ko ci daara yi ci lu wér ci lépp loo xam ne daara ji dana ko soxla ndax am nañ ay groupe am nañ ay njiit ñoo xam ne ñoo ne ca bopp ba sëñ Mahmoudane Fall di ko jàmbaare lool di coordonné ñëpp lépp loo xam ne bépp réunion bu tënk te ku mënta ñëw moom bu lañ ci tënk dañ la ko wax dañ la woo téléphone nemeeku la wax la la nga xam ne moom la daara ji tënk kon dañuy ñaan képp koo xam ne euh, lañ tënkee ci daara yi accès ci yow na nga ci bay sa yow tànk lu ca te xam ne maanaam liggéey bi yàlla dong ci lañ lay woo ñu ngi ñaan tamit parent yi nga xam ne ñoo ñi boon ca daara te ba léegi tegguwuñ seen tànk ñoom itam ñu ànd ak ñoom ci liggéey bi ba boo liggéey lépp loo xam ne daar yi dana ko soxla bu ko songee man koo daan kon kàdd yii la ma ressortissants yi yónni woon ci ne naa ko jotal xam naa ñu la waxoon sax xëy na ëpp na lii waaye euh, dama doon jéem a mottali rek kon lépp loo xam ne rafet na ci rek ñoo xam ne suñu borom subhaanahu wa taala la lépp loo xam ne am na ci ay rëq-rëq ci ki doon ji ma jotal la rek moo xaw a gàttanlu wa axiru daawaana an alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf euh, sëriñ Yadaly Niass euh, moom moo doon wax ci waaw moo doon wax ci turu ñi nga xam ne jaaroon ci daara ji waaye nag doon wax ci turu ñu góor ñi ndax xam ne ni ab société ñaari tànk lay doxe muy góor ñi ak jigéen ñi daara ji it sóoraale loolu moo tax ba eh, ba mu jógee ba léegi ni muy taxawee ci jàngal góor ñi ak yar leen defar leen noonu lay taxawee ci jàngal jigéen ñi yar leen defar leen ba tax na ñoom it eh, dañuy ñëw dañuy woo soxna maam Jaara Jeng muy wax ci turu ressortissants yi muy ñi nga xam ne ñoo jaaroon ci daara ji ci ay soxna yoo xam ne ba léegi ñu ngi sàmm seen coloré seen diggante ak daara ji kon soxna maam Jaara Jeng moom la ñuy woo ci loolu nga xam Nissan Nissan oto Nissan boo xam ne dafa rouge dafa xonq euh, numéro bi di AA 100 129 dafa mel ni fi mu gaare dafa am ku nekk ci ginnaawam bëgg a bëgg a génn ca bu euh, demut dana xaw a jafe ñu ngi ko sàkkoon ci moom Nissan bu rouge la AA 129 euh, kon ñu ngi koy bàyyi xel bu baax bu ñu mënee dimbali rek mbokk yi ba léegi bokk nañ ci ñu fi teew al imam Serigne Ibrahima Bousso. Euh, di imaamu masjid Serigne Cheikh Saliou Mbacke ci fii ci parcelle euh, Serigne Mouhamadul Fadil Mbacke moom it mi ngi ci jataay bi docteur Jim Dramé mi ngi ci jataay bi professeur Serigne Sall Serigne Fadilou Samb mi ngi ci jataay bi al oustaz Serigne Mahamad Dieye euh, moom it mi ngi sunu soppe mi ngi ci jataay bi kon mbokk yi ñi ngi xaar soxna maam Diarra Dieng mi nga xam ne moo war a def moo war a jël kàddu ci tuuru ñi nga xam ne ñoo jaaroon ci daare ji ba noppi di e, soxna yi ni nga xam ne kon góor ñi noonu la amee ñoo xam ne e, seen taxawaay seen digganteeg daara ji rafet na ñi ngi sàmm seen couleur seen digganteeg daara ji naka noonu noonu la amee nag soxna yi seen taxawaay seen digganteeg daara ji ñu ngi koy sàmm bu baax kon soxna maam jaari jeng bu dee mi ngi ci barab bi moom lañuy ñuy néggandiku ngir mu ñëw jël kàddu soxna maam jaari jeng mi ngi fi ndax soxna maam jaara jeng soxna maam jaara jeng ñi ngi euh, sàkk mu ñëw jël kàddu ci turu ñi jaaroon ci daara ji ci ay jigéen kon soxna maam Diarra Dieng nee nañ mi ngi mi ngi agsi mi ngi ñëw ñu koy xaarale tuuti seen nañ sunu soppe sëriñ Massamba Ndiaye moom it eh, ñu ngi rafetlu ab teewaayam mbokk yi kon ni ñu koy waxee woon sànq rek day mel ne ki ñoom dañuy gunge dañuy gunge soxna maam jaara dañuy def délégation xam naa moo tax seen waajtaay aleen kumbawaay kon ñu daal di leen di jox micro bi mbokk yi ñu ngi koy baamuwaat ba léegi beneen Nissan Nissan bu rouge matricule bi AA 129 CX AA 129 CX. ñi ngi sàkk fi mu gaare dafa mel ne dafa am kum baare koo xam ne bu génn du mën a dem kon ñi ngi sàkk bu mënee euh, àndale daamaram tuuti rek ngir kooku mën a génn بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأس عطفا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكسين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذوا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 nuyoo bi ci suñu sëriñ sëriñ Bas mu sëñ Fàllu di ko ñaanal suñ boroom may ko gudd fan ak wér gu yaram di ci teg suñu imam suñu baay suñu xarit sëriñ Xaadim Njaay di ñaan yàlla suñu borom may ko gudd fan ak wér yaram yokku yokku cër yi di ci teg képp ki nga xamante ne teew na ci saal bi ku ci nekk ñu ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant ñun nag waaru ressortissante yi dañoo amoon benn soññ boo xamante ne nii dañoo dañ ko jagleeloon suñu baay suñu imaam sëñ Xaadim Njaay mu nekk loo xamante ne xeeb nañ ko lool te di ñaan yàlla suñu boroom ñu teewee ko ay at yu bëree bari ba nga xamante ne nii kado bii nga xamante ne moom lañ ko bëggoon a jagleel ñu ngi tuub bu baax ñu bëggoon mu ñëw jël si ko ci kaw taabal bi te di ñaan yàlla suñu boroom may ñu ay xéewal ba nga xamante ne dinañ dem ay ati at ba nga xamante ne kado bi caabi kër lay doon baa caabi oto baa sax pale boo xam ne daara lay nekk baa biye màkka ndax yéene yi bëri na lool te xeeb nañ ko lool salaamaaleykum wa rahmatullah di tuub bu baax ci kàddu yi nag dañoo mënewul wax waaye sëñ bee ko jar macha allah kàddu gi kay rafet na lool li ci ëpp solo moom mooy sàmm kóllëre gi xamante boo xam ne alxuraan moo ko sabab jëflante boo xam ne alxuraan moo ko sabab ñi ko yàlla def seen diggante war nañoo góorlu lu ñu man ngir sàmm ko kon lii ngeen def yéen màndarga la ci ne yéen a ngi sàmm kóllëre gi dox seen diggante ak sëriñ xaadim kon macha allah mbokk yi ñi ngi jox sëriñ xaadim njaay kadoom bi ñoom xale yi nga xam ne ñoo jaaroon ci daara gi ci ay soxna kado bi nga xam ne moom lañ ko indaaleel ba noppi nag wax wax yu rëy yéen nañ mu nekk caay bi kër yéene nañ mu nekk caabi oto macha allah kon gis ngeen nataal bu yànj boobu nataal bu yànj boobu nga xam ne moo lañ ko defaral muy sëriñ xaadim ñu nataal ci sëriñam sëriñ basirum Cheikh Mamadou Fadal xafidahu llahu taala wa raa yàlla na yàlla guddal fanam lool loo xam ne xam naa ne sëriñ xaadim xal bi daan sedd lool dàkk na dàkk nañ bëggu sëriñ xaadim macha allah dàkk allah macha allah kon mbokk yi lii lu rafet la lu am solo la Cheikh Abul Baraka mi ngi noonu taxaw ci wetam di doomi Cheikh Amadul Bachir moom Cheikh Amadul Fadel waaye nag bokk ñi nga xam ne ñoom it ñoo jaaroon ci daara yi ci loxol Serigne Xaalim Ndiaye ànd ci délégation bi nga xam ne it ñoo jógee ca Serigne Bachiru moom Cheikh Amadul Fadel Serigne Mahamadul Moustapha jiite ko kon mbokk lii lu am solo la lu ñu rafetlu la yàlla na yàlla fay aw yiw yàlla na yàlla mottali seen yéene mooy ngeen dem ba di ko joxe comme caabi oto wala caabi kër bee makk wala daare alxuraan ju sotti ku yàlla def kon mbokk yi ngir gañee euh, waxtu yu ba léegi rek du ñu def lu may jébbalaat micro bi sunu mbokk yi nga xam ne ñoo yor nekk ci taabal ji euh, sëriñ Yeddaali Ñas ak sëriñ Fallou Ndiaye ngi ñu àndal ñu dugalaat ci xale yi nga xam ne ñoo waral jataay bi ñu tànlaat ci euh, ab lim ñu weelaat liggéey bi ba léegi kon sëriñ Yadali Niass bismillah jërëjëf sëriñ Cheikh Ndiaye ñu woowaat euh, ci xale yi ñu bégalaat ñu ci alquran ginnaaw bi ñu weesoo juróomi xale ñuy woo Cheikh Mouhamad Sanku Faati Mouhamad Sanku Faati Mahmoud ah, Mahmoud Sanku Fati nuyool asalaamaaleykum wa rahmatullahi waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu Cheikh Mahmoud Sonko Faty way juróom bu góor sëriñ Ibrahima Faty la tudd way juróom bu jigéen soxna Fatou Bintou Cissé mi ngi gane àdduna le 25 novembre 2004 di am fukki at ak juróom ñett Cheikh Mouhamad dañ lay bàyyeek bàyyi sëriñ bàyyi sëriñ Ndiaye mu ñëw yow ci ay laajam sànko faati alsualu alawal ibda min qawlihi taala baada audu billahi min alsheytani irrajim bismillahi arrahmani irrahim لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه بسم الله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 والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد تزيق قلوب فريق منهم قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم بهم رؤوف رحيم وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رهبت وضاقت عليهم أنفسهم ۖ أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن هو التواب الرحيم يا كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمسة في سبيل الله ولا مخمسة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يخيل الكفار يخيز الكفار ولا ينالون من عدو غيلا إلا كتب لهم ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ۖ ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون حسبك صدق الله العظيم تكبير تكبير takbir allahu akbar mahmoud sanku njàng mi neex na lool macha allah doyluñu woon nag ci yow bëggoon nañu lool nga dem ak ñun ba ca kanam waaye waxtu wi xooj nañu lool itam te bëgg nañ sa morom yee ñëw toog fii bégal ñëw ñu ngi lay ñaanal suñu borom defal la barke ci alquran ji te ubbil la bunti xam-xam yépp euh, ñu ngi lay ñaan nga dellu sa place ñi woo beneen dongo sëriñ saalixu faal sëriñ saalix faal ba tey bokk yi yéen a ngi ci fondation daaru tanzil dix-neuvième édition ñuy teral xale yi nga xam ne ñoo jàng alxuraan ba mokkal ci daaru tanzil sëñ bi nuyool wa aleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. sëriñ Saalix Fall wu góor di sëñ Souleymane Fall way juróom bu jigéen soxna maam jaara sàmb mi ngi am fukki at ndax mi ngi gane àdduna le 12 quatrième mois 2012 boo ko calculé léegi mi ngi toll ci fukki at sëriñ Saalix dañ lay jox sëriñ Baye seriñ mu an ñëw ak yow ci ay laajam incha allah sëriñ saaliw fall alsuaalu alawal ibda min qawlihi taala baada audu billahi min alsheytaan alrajim bismillahi arrahmani arrahim alif lam mim zalika alkitabu la rayba fih bismillah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 يوم الدين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وما الله على قلوبهم وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون بهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون وإذا takbir takbir takbir allahu akbar sëñ Saaleex njàng mi neex na am na solo lool waaye dañuy jéggal waxtu wi moo ñu xaw a xoj moo tax ñu gàttal noonu rek wax dëgg yàlla njàng mi am na solo neex na lool yàlla na ci yàlla def barke te xam-xam bu yaatoo yaatu tegu ci mën nga dellu sa barab toog fa